Ah, balaa may jeexal dama génnoon ma wax fi ci Saint-Valentin mu jur yuuxu bu métti Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ne wallahi wallazi nafsu Muhammad bi yadihi giñ naa ci yàlla mi nga xam ne moo yore bakkanu Muhammad bu dul woon yàlla bind na safara ba pare mënuma àndil yàlla désordre danaa ko doon naan tëjal safara ma yóbbu ñëpp arjana nee na man Mouhamed bëgguma kenn la wallahi dàll boobu laa sol bëgguma kenn tëdd buntu jàkka ñu lay jullee fekk yaa ngi jëm ci bàmmeel goo xam ne ay jiit ay jaanu ñàngoor ay jaani baloor moo la fay xaar déedéet bu dee sama sago ñëpp dañuy texe dugg aljana bu dee sama sago kenn mu jëm du ñaaw te mu jumoo am solo de Cheikh Moulay Hassan Haydara di maamu sama papa mun a ñeenti ñaan yi sëñ Touba daaw ko kafe daf ko la mun a ñeenti ñaan am na sëñ Touba lu mu yàkkamte dina ko wax mooy oltuf bina wa qawina wa kun lana wa hablana xusnal xitaami rabbana may daal di wax bayit bi yàlla yërëm ñu wa qawina yàlla dëgëral ñu wa kun lana yàlla nekkal ñu waxab la naa nga may ñu xusnal xitaami mujj gu rafet xeeti muhammad képp ku leen di andi lu leen di yóbbu sabara sa mujj fay ñëw euh, am na ku génn xas xas xas ba mu nekk sëñ bi wax ni ci Saint-Valentin ñun catholique yi nangam wallahi ni ma jàngee diina islam noonu laa jàngee diina catholique am na làbbe bu ñu doon tuddee père Talman Ndofane la nekkoon ki ma doon àndal ci moom ñu ngi ko tuddee Gabriel Diouf mi ngi dëkk dëkk bu ñu tuddee Jamweeli ci witi Nioro danaa wax tur yi ba ngeen dégg ko tey Gabriel Diouf la borom tudd mi ngi dëkkoon Jamweeli moom kii laa àndaloon kër ba may seeti père père Talman fii ci Ndofane moo doon def émission chrétianisme rajo Kaolack moom moo ma booleeg beneen père mooy Dalak ak beneen per bu ñu tuddee bourgeois. kër gi ma yaroo am na benn général ci armée bu Sénégal Touré Katoline la yore jamonoy Abdoulaye Wade moom laa àndal puis 12 ci ku ñu tuddee monseigneur Théophile Kado moom la ñu tuddee cathédrale bu Kaolack bi li ma jàng ci diine catholique mooy comme ni ma jàngee l'islam am na fu ñu doon tuddee assemblée de Dieu en face gare bu Kaolack fi ñu def hôtel Dior fa doon dem di jàng évangile bu Luc bu Matthieu bu Jean bu Paul. man maa dem ba Éthiopie montagne bi nga xam ne fa la ñu denc biibul yu njëkk yi ñu ko dee ak su ma yéeg bi ci kaw te moo gën a njool antenne Kaolack bi amul escalier amul jaaruwaay da ngay yeew buum sa sa ndigg nga daal di grimper foo balaa ngay daanu tey man maa yéeg bi ci kaw ba teg bët téere bi ñu bindoon jamono yontaal Isa allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah bu leen neexee ngeen connecté wu léegi montagne bi mu ngi tudd ak suum dangay jóge bila belaali wala laali la nga dem foofale moo gën a njool antenne Kaolack bi da ngay takk buum sa ndigg nga grimpe dem ci ko man maa dem ba teg évangile yi bët même bu nit dee foofu duñ ko suul dañ koy dugal ci poxu doj bi man maa dem ba gis Euh, yaramu ñi nga xam ne ñoo fa dee ñu suul leen fa lépp luy jigéen du fa dugg même nag yi fa nekk ay góor la li ma jaaxal mooy nag yi nan la yéegee foofu xanaa ba muy lu tuuti lañ ko takk yéegal ko dëkk montagne bi ñu ko tuddee ak sum na ngeen connecté wu da ko gis li ñuy naan alquran la jàng jàngul ki man li ma xam ci diine bu ma ko waxee du jur jàmm waaye li ma bëgg mooy nañu dund ci dal ak tal nañu dund ci maslahante man maa ànd ak cardinal Gantin moom euh, beneen waala ma toog Jean Paul II toog mooy be ko turc bi jamee fetal ma créé benn délégation dem foo ne nag ñu baal ak ki la jam di Mouhamed Ali Agga Mouhamed yebalu ko de Aliou yebalu ko de jullikat la waaye boo ne jullit la da nga tooñ de lislaam nee na bu ñuy geer bu kenn dagg garab guy meññ te soxlawoo ko bu kenn suul ndox mu ñuy naan bul rey jur boo dul lekk même boo fekkee labbe ci jàngom muy jaamu yàlla te deful lu bon bayu xale noonu jigéen noonu ma ne kon Mouhamed bi ne temps guerre bu ñu laal euh, sëriñ daara kon du ne mukk ngay mees ñu daal ñu dóor la fetal ma ne yow ku sell ki man maa ko yow ku sell ki yow ki gedd jigéen gedd doom ak sët nga sol mbubu malayka ngir ngay tinu jaami ñu ngi lay jéggalu du ñun ñoo ko def waaye dafa ne bërëb tool moom dafa bëri woon ay jàngoro ndax boo daanu na ci duusam tamit maa ngi jéggalu ci wax bi tuuti lu ma ko bi am ay dam waaye dafa jóg toog daal di ma xoolaat seet li ma ko ne ku sell ki ki sol mbubu malayka gedd jigéen gedd doom ak sët nekk pap di ñaanal doomu aadama yàlla waaye daf ma déglu ba ma ko waxee Saint-Valentin dafa ne catholique yu baax yëpp dañuy rus a feetu Saint-Valentin mu ne katolik bu baax chrétien bu baax dafay seexlu Saint-Valentin ndax dafa ñuy gàcceel bëgguñu kenn nettali ko te Saint-Valentin dañ ko mujj a rey njaaloom la doon làq mu ne militaire yëpp nañu dem njaalo ji tey boobu temps guerre dafa bëri Europe guerre dafa bëri Europe soldats yi bu ñu demee dañuy dee bu ñu dee dëkk bi bëri ay ay jirim kenn du leen mën a dundal officier yi rek ñooy takk jabar moom nag bu nekk ci biir jàngu bi ndeke ni muy jaamu yi mi ngi xool jigéen ñi rek yàlla moo ko natt ci loolu te lii bëri na bëri na Benoît seize dafa dafa dafa démissionné Grégoire douze dafa démissionné kooku moo njëkk deme démissionné ci l'abbé ci pape yi Grégoire douze dafa démissionné tere na leen loolu ñu bañ temps bu nekk da dégg def nañ nanga njombe du ñoom rek ñoo koy def même sëriñ yi dañ koy def nit nit rek la ni sëriñ si di demee ci doomu jàmbur yi ñoom tamit loolu dafa am jikko bu bon am na jikko baax am na ñëpp du ñu bon waaye ñëpp du ñu baax Moussa yonant la woon waaye këram amoon na Qaaruna na ku bon la woon waaye këram am na Asiya ku baax la lépp du baax lépp du bon yàlla dogal yenn temps muy jël fleur bu ñu dee flamboyant sànni ko yenn temps mu jël fleur bu ñu dee arécoria mu sànni ko yenn temps mu jël fleur bu ñu dee belle du jour mu sànni ko fleur la doon wax ak soxna si muy génn ñuy njaalo ba mu ëmbalee kooku nag mu ne militaire yi na ñëpp wàcc ci tey kenn ku ne nga dem sa coro keroog dëkk bi ku nekkoon jànq nekk nga jeeg ku nekkoon jeeg ëmb nga lii mooy 14 février ñu ko dee Saint-Valentin kii saint la du sain li ci nekk na mooy dañoo foog ne man dama yàq seen marché fleurs yi ñuy jaay chocolat yi ñuy jënd ay milliards et milliards la tubaab di jël sa Afrique daal di jël benn carte postale ki ma chérie euh, ñu jaay la ko cinquante mille kayit kese voilà boo ko joxul mu daal mer boo ko joxul mu daal di mer labbe yépp sabadoor bu weex lañ doon sol takk lu xonq seen digg wala lu ñuul moo njëkk tàmbalee sol rouge noir ngir bu génnee guddi buñ ko xamee rouge noir daawuñ ko sol moom moo ko njëkk a def ba léegi yow ngay nit ku ñuul topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ngëm dikkee gëm nañu yonent yépp boo gëmee Muhammad gëmoo Isa yàlla nangul sa lislaam boo gëmee Muhammad gëm Isa te gëmee Muusa yàlla du la nangul laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qaalu sami'na wa ataana ghufraanaka rabbana yéen a ko yëggal waaye ne bu demee ba pas-pas moo ñëw lakum diinukum wala diin yonent yëpp la ñu gëm waaye bu pas-pas dikkee lakum ko wala diin jullit tabaski la moom jullit korite la moom kastu rajab la moom gàmmo la moom tamxarit la moom israel miraj la moom leetu qadr la moom bu dee yeneen fête la premier mai baax na fête de travail la 4 avril fête indépendance la fête des pères baax na sa baay de maire baax na ah. waaye na ay ascension ay Pentecôte ay Toussaint ay Pâques 15 jours dañ doon def quinzaine nationale de la jeunesse temps Senghor Kaolack yëpp dem Dakar ba 15 jours xale di biir rek déwén ñu dem Kaolack déwén jéeg ñu dem tàmba fukki fan ak juróom xale yi dundee ak bàyyi ñu nekk ci àll bi lii jamono Senghor la man fekkee naa ko dem nañ beeg Sénégal dañ doon soppi suñuy tur yow noo tudd man maa ngi tudd Bob euh, euh, Bob Marley yow noo tudd Peter Tosh yow noo tudd <laughs> Bob Dylan noo tudd Kolo Kolo noo tudd Robert Indar noo tudd man euh, Wilson Pickett noo tëdd façon yi li ci ummatu muhammad xanaa doo fàttaliku bés booy tëdd ci kaw balankaar nga tëdd ci buntu jàkk concert yi ñu ciy def da mujj a bàyyi étage yëpp ñu wàcce la bàmmeel billet yi ñu ciy jaay cadeau yi ñu ciy jaay chocolat yi ñu ciy joxe concert yi lépp da ko bàyyi fi nga wàcc bàmmeel doo yóbbaale lu paase ñett mètre percal dajale ay góor a jigéen ñuy tabaka fecc di pàkkar ñi ne man bu ma tudd loolu wallahi allazi laa ilaha illa man buñ doon yeew sama tànk di ma diri ci tël ba sama ndawal bi jeex ummatu muhammad naa leen wax lii baaxul def leen lii lii moo leen di yóbbu ci yàlla lii moo leen di jëlee ci yàlla lii du ma denc ko wax ak lu ma jural baax na buñ ma reyee danaa dee buñ ma reyul danaa dee kaso moom sama doon bàjjen la dama ko tëdd ba sonn ko <laughs> dégg nañu <laughs> kon bu leen ci xuloo bu ma nit saaga baax na bu ma nit ŋàññee baax na suñu benn maam daara ci réew mi mënuma ko tudd nee na li mu déggul mooy sukk na am doom te dañoo xam ne góor du ëmb rek waaye dégg na lépp kon sant yàlla yonent yàlla Muhammad am na ku ñu tuddee Walid bun Mughira dafa tiim yonent ne ko doo doomi Abdullah man kenn waxaguma loolu te kenn duma ko wax xeex ngir man bu leen xasante ngir man du ci internet du ci Twitter YouTube yi lu nit wax baax na man combattant bu Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ilaha illa am na téere bu ma tàmbalee bind mooy kayfa yasmaw man fil waadi xadisa man fi naadi ak beneen kook ci français la ak anglais mooy l'islam n'a pas de problème vers l'Occident par contre l'Occident a des problèmes vers l'islam l'islam amul problème ci op ci tubaab bi waaye tubaab yi ñoo am problème ci l'islam téere bu génne mbooleen évangile kan moo ko bind Isa bind ko man danaa kan moo ko bind ak ban bés lañ ko bind ak jan jamono lañ ko bind benn évangile binduñ ko jamono Isa Isa dem ne ba am ñaar fukki at ñu soog a tàmbalee bind évangile te Seydina Muhammad balaa muy faatu bind nañu alquran ci kanam allahu akbar lii bés bu feeñee toj toj lay jur na ànd ak seen sago gaynde bu génn ci màndiñ di ni ci géej ngoox ngooxi mbott du ko delloo lu leen neex nañu wax lu leen nañu def mbott amul genn waaye yàlla nga koy upp ah kooku utanturicum bari alaba fii fala ah yàlla yàlla sàmm leen yàlla dimbaleen